Seydina Muhammad mooy suñu yonent ku ko bëgg billahi ñun bëgg nañu la Seydina Muhammad mooy suñu yonent ku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 naudu billahi min annaar allahumma la sahla illa ma jacaltahu sahla wa anta tajcalu alxadana ida chita sahla allahumma xrusna bicaynika allati la tanaam waxfadna biruknika alladi la yuraam warxamna biqudratika calayna wala tuhlikna wa anta arraja delsiwaat nañ ci muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam war ñëw tey ci cinquante-neuvième dars bi muy gazwatul ahzab muy xare ahzab bu ñu waxee ahzab liñ ci namm mooy yéefar yi dañaa def ay coalition yu bari dëkk yi contrôle islaam yépp ànd booloo ngir ñu ñëw faagaagal yonent bi sallallahu alayhi wa dinañ ko wooyee tamit xazwatu xandaq dana feeñ ci kanam li tax ñu tuddee ko xazwatu xandaq Euh, balaa ñuy sori dinañ gestu ñaari bind ndax ñu mën a xam lan mooy jubluwaayu xare xandaq dafa am benn xeex bu avorté boo xam ni waajaloon nañ ko ba yonent bi waajal ko waaye mujjul sotti walla nga ne ñaar bi ci jiitu mooy gazwatu badrin athaniya mooy xare badr xam ngeen ni amoon na waaye amaat na beneen xare badr loolu lan moo ko indi bi jullit ñi jógee gazwatu najd yonent bi fekk génne na banu nadir ba pare loolu nag ak masaat biiru mauna jullit ñu commencé nañu amaat stabilité commencé dalaat nitu àll yi nga xam ni ñoo daan indi fitna yem nañ léegi nag mu def seen noon yu mag yi nga xam ni ñoom ñooy waa Quraysh bi mu ko defee teg nañ luy jege at rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jot ay renseignement yu leer yuy wane ne Quraysh ñu ngi préparé pour dal ci kaw jullit ñi bi yonent bi vérifier information boobu ba mu leer ne lu am la ci la yonent bi génn moom ak i saxaabaam abu sufyaan moom it dajale na aw nitam ngir génn loolu mi ngi nekk ci weeru shaabaan atum ñeenteel ba mi ngi tolloog mois de janvier 626 bi yonent bi génn mi ngi ànd ak 1050 muqatil mi ngi ànd ak junni ak juróom fukk ci ay mujahidin keroog li nu yóbbu ci ay fas fukki fas la yonent bi sallallahu alayhi wa nag jël drapo boobu dénk ko Ali ibn Abi mu yore drapo bi moom yonent bi mu yore commandement de guerre mu bàyyi ci Madina Abdullah ibn Rawaha nga xam ni waykat bu siiw la woon jàmbaare woon lool ci kanam dinañu gis kan mooy Abdullah ibn su ñu demee ba Xunayn dinañ fekk mu def fa jaloore ndax foofu lay des moom Abdullah ibn Rawaha keroog yonent bi sallallahu alayhi wa ànd ak junni ak juróom fukki mujaahid ci saxaaba yi ridwanullahi alayhim bi ñu ñëwee ba Badr fi ñu njëkk a xare woon muy xare Badr foofu la yonent bi taxaw di xaar yéefar yi ñëw Abu Sufyaan moom it génn na ànd ak ñaari junniy xeexkat ci kuffaaru Quraysh Abu Sufyaan dajale na ñaari junni ñoom it ñu armewu ñu ngi yor ci ay fas cinquante fas lañu yore Abu Sufyaan moo jiite yéefar yi te moo sooke histoire bi bi ñuy dem ba bërëb bi ñuy wax marri dahraan Abu Sufyaan commencé naa jeexal Màkka ñëw ba ci bërëb bu ñuy wax ma na ab dex bu ndaw la walla sayaan bu ne foofu foofu la Abu Sufyaan tollu rekk yaramam commencé diis fitam commencé dem ndax dégg na jaloore bi Muhammad def Madina def ko ci dëkk yu ko wër yooyu yépp mi ngi ànd ak gaa yi li muy dox yépp mi ngi xalaat xare bi su amee lan lañ ci nar a góobe wala lan lañ ci nar a perte kon commencé naa ragal dem ba ci yàgg tiitaange dugg ko bi mu tiitee nag ñemeetul avancé gaa yi di ko xool mu taxaw ba ci yàgg wàcc bërëb bu ñaan Zahraan foofu nag la daal di gëlëmee ci entre dañuy xare walla duñu xare boobu fekk na ragal dugg na ci moom ba pare nit nag bu diriger guerre dem ba ragal su yeboo na dellu ginnaaw xam ni mënta gañe foofee rekk la woowee réunion dirigence ne gaa yi taxaw leen ñu waxtaan ñépp taxaw mu ne leen man dey day am maa leen jiite waaye am na lu ma xalaat sama gannaaw ñu ne ko lan la mu ne ren mënuñoo xeex a lu tax nga indi ñu fii mu ne dama fàtte ne ci bekkoor lañu jóge mbay mi doxul gëléem yi lekkuñu ba suur ba am lu ñu nàmpal te na kom bekkoor rekk xare la su boobaa bu ñu duggee ci beneen xare mën naa indi jafe-jafe gars ne ko ah ñun de ñëw nañ ba pare mu ne en tout cas maa leen diriger man moom mënatumaa dem damay dëpp bi mu waxee loolu fekk ragal dugg na ko bu jéggi dayo ñemeetul siqi tànk dem ah mënatul dem bi mu waxee loolu ñu bari ne ko waaw ah, kon de li nga wax xalaat la lan mooy pexe kenn opposé wu ko ne ko nañ dem kon li muy wane mooy ragal gi ko dugg dugg na ñeneen ñi waaye bu fekkoon am na ñenn ci ñoom ñu mu duggul rekk mën nañoo xëccoo foofu waaye nañ leen dëpp ñépp ànd ci ñu dellu ginnaaw tournée yonent moom ñëw na ba Badr sallallahu alayhi wa def na fa huit jour di xaar Abu Sufyaan ak mbooloom ah xaar-xaar gisuñu kenn ñamu àndaloon lañu ñu ci marchandise ñu daldi ko fay jaay tourné dellu Madina gën a amaat dal ak jàmm loolu mooy Badr Assani dinañ koy jàmm xale yi jàng ak ñiy jàng histoire léeg-léeg ñu leen di laaj naan leen ñaareelu xare Badr ban la mooy bi ma nettale nii effectivement xare bi mujjul am dafa mujj avorté jóge ci Abu Sufyaan am na nag ñeenti tur yu ñu koy tuddee dinañ koy tuddee badrul mawid muy badr bi nga xam ne rendez bu jon préparé la dinañ ko tuddee badr saaniya moo gën a siiw dinañ koy tuddee badrul axira mooy xare badr bi mujj dinañ koy tuddee badru sugra muy ñeent yooyu yooyu yépp ñëw na ci ibnu hisham ñëw na ci zaadul maad ñëw na ci téere yu bari am na it beneen xare bu ñuy wax xazwatu dawmatu jandal dëkk la bu nekk ci wetu siri ay montagne la ay arab ñoo fa dëkkoon ak i saay-saay yonent bi jóge na ci xazwatu badr assaani wala saaniya ñibbisi bi mu ñibbisee tooguñu six mois rek yonent bi jotaat yeneen renseignement ñu ne ko côté dawmatu jandal mooy ca côté Syrie côté Saam am nañu fa armée di ngandiyaar ngandiyaar mooy mbooloo bu ànd yore seeni fas ak seeni arme di dal ci ay dëkku jàmbur di nangu seen alal di nangu seeni jabar di nangu seeni doom amoon na fii liñ daan wax kajoor tëgg leen fii ku fi fanaan dib jaam am sa doole rek dugg ci dëkk jàmbur jaay leen doole nangu seen lépp ci loolu lañu nekk xabaar bi agsi na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi laajte xam ni dawmatu jandal fu jege saam la yoon la bu ko galanu mu ko defee yonent bi préparé nag génn ak junniy muqaatil génne junniy saxaaba daa ànd ak ñoom keroog ki yonent bi bàyyi Madina mu dirigé ko mooy siba ibnu urfuta alxifaari mbokk la ci abu zar am na ñu ne rakkam la sax waaye siba ibnu urfuta yi moom la yonent bi ne xaar ma madina nga gérer dëkk bi ba ma ñëw bi mu ko defee loolu mi ngi tombeek rabiul awwal ci juróomeelu at bi ci gàddaay bi yonent bi jël benn waay comme xamul yoon bi te dëkku àll yi dafa laaj boo ciy jaar nga xam yoon moom la ñuy wax xafiir ci arab léeg ngay dox dox boo xam ni am ku xam yoon bi dafa baax ndax di nga mën a moytu di nga mën a teg teggi ki yonent bi jëloon comme dalil mooy li ñu tuddee comme guide touristique yi rek nga xam ne dangay jël kii mu lay guidé ci yoon bi ndax xamoo ko kan la yonent bi jëloon ku ñuy wax mazkur ñu fay ko pour mu tegtal leen yoon bi ngir ñu jëm dawmatu jandal am na ñoo xam ne ci arab loolu moo nekkoon seen liggéey seen liggéey mooy ku bëgg a dem ci dëkk sàngam boo fayee ñu gide la ba nga àgg yonent bi génn ànd ak junni ci saxaaba yi jël mazkur boobu ma la wax waaye ni ñu programmé woon yoon bi comme junniy nit lañ te armée la suñu génnee bëccëg léegi xabaar bi commencé jóg ñu jot ko nga xool démb dëkk yi ni ñu soree kii day dégg jottali kii jottali kii mu àgg astama bu doon tey nga xam ne téléphone a gën a gaaw kon dañuy jékk rek ne diw mi ngi jóg préparé na kon yonent bi li mu tëral mook saxaaba yi mooy bëccëg bi dañuy kàmpe ci àll bi làqatu noppalu lekk naan ba guddi bu ñu julleegee topp guddi gi dox ko ndax seen jamono guddi moom daanaka kenn daawu ko dox ñoom guddi lañuy dox te guddi moo gën a yomb ci fas yi moo gën a yomb ci gëléem yi moo gën a yomb ci ñuy dox te amuñu fas ak gëléem ndax guddi tàngul mettiwul kon guddi bi lañuy dox su fajaree ñu kampe ci àll bu leen kenn dul gisee làqatu sunu làqatoo mën a noppalu foofu noonu lañ doon def ngir bañ noon yi xamal leen dara ñuy sàmmaale seen jur ba bëccëg gi guddi gi ñu fekk ratt nañ ci meew mi mën a lekk mën a naan mën a dem loolu nag yonent bi dox na ba jub daw ma keroog yonent bi sax na bërëb booba ay fan commencé tànn ci ñenn ñi di leen yónni pour ñu dem xam xabaar bi lan la waaye avant ñi muy yónni pour ñu xam xabaar bi lan la fekk na ñële seen xel jàpp na ni walla yëg nañu boog Muhammad mi ngi ñëw ak i saxaabaam te dëkk yépp dégg nañ ni Muhammad armeem bi kenn mënu koo dékku ndax nation yi gënoon a mag ci côté boobu yépp faagaagal na leen ba kenn ñemeetul yëngu kon ñii nga xamante ne ay nitu àll lañ dañuy dugg ci ay dëkk di nangu alalu jàmbur xëy na ñu ngi koy def gaa mais mbooloo bu ñu mën a jaamaarloog yonent bi amuñu ko gaa yi nag mujj daw tasaaroo kenn ku nekk jaar fasam kii gëleemam kii jaar fii ku nekk jaar bërëb ñu daal di daw bi ñu dawee nag keroog yonent bi ñëw na ba ci dawmatu jandal fekku fa kenn gisuñ fa kenn même bagage jotuñ ko fa am loolu nekk moom it xare boo xam ni dafa mujj avorté léegi nag xabaar bi siiw na ah Muhammad nag moom commencé naa dominer àll bi demine na dëkk yi waaye gis nga loolu li muy am am bu ñu ñëwaatee ci gazwatu ahzab yonent bi ñibbisi na dal commencé am ndax mboolem seeni noon toroxal nañ leen ba kenn ñemeetul yëngu loolu lépp booleek yahud yi mënuñu koo admettre ñoom mënuñu nangu ne Muhammad not na leen lan moo tax rëy moo leen jàpp ak caay-caay ak naafiq xamuñu lu ñuy def comme ñemewuñoo xeex ndax seeni mbokk yonent bi génne na leen muy bani ratafaan dàq nañu leen kon nag commencé nañoo gis ni jafe-jafe am na yahud yi waxtaan ci seen biir ci kilifteefu papa yi Safiya nga xam ni yonent bi jëlagu ko mais papam muy Xuyay ibnu Axtab moo jiitee yahudi yi màgget la mu jege juróom-ñett fukki at sikkim bi weex tàll bi mu ko defee ñu tànn ci ñoom fukk ci seen biir ñu jàng ñu ngi ci ay fóore ay boroom xam-xam ñu ne léegi nan la ñuy def nañuy yongaan nañu ut ay pexe te mooy lan mooy dëkk yi wër Madina ba ca Màkka nañu fay dem di waxtaan ak ñoom ngir ñu mën a am ñu ñu jàppale ñu dal ci kaw Muhammad jamono bii Occident noonu lay def dëkk bu mu bëgg a dal ci kawam ay journaliste ay borom pexem dañuy jóg di wax di yàq sa tur di yàq sa der ba nit ñi ragal la bis bu ñu la ragalee ñoom ñu doog a am li ñu bëgg noonu la kilifa yahud yi def nga xam ni fukk ci ñoom génn nañu tëral benn plan plan bi mooy ñoom kilifa yi nekk ci banu nadir jóg comme yonent bi génn na leen ca Madina seen xol jeex ñu ne nañu dem Màkka ñu def benn délégation ñëw Màkka ngir xiir yéefar yi pour ñu mën a xeex ak yonent bi bi ñu ñëwee Màkka waxtaan ak ñoom ne leen ñun de yéen waa Quraysh yéen lañu àndal te yéen yéen a yor diiney dëgg bi gis nga naa naaféq li tax mu bon mooy bañ muhammad tax nañu weddi diiney dëgg te xamoon nañ ni diiney dëgg bi muhammad a ko yor ndax ñoom ahlu kitaab lañ waaye comme am na lu ñu mer jaral na leen ñu wax lu dul dëgg te gis nga bi ñu waxee loolu ne dañoo bëgg dimbale Quraysh pour ñu dal ci yonent bi ne waa Quraysh yéen a yor diine dëgg bi Quraysh itam am fayda ba dee ne leen ñun li ngeen wax gëmuñu ko ndax yéen jàng ngeen seeni téere su ngeen waxee ne ñun ñoo yor diine dëgg bi wan leen ñu preuve bu wane lu mel noonu ñu ne leen preuve bi mooy lan yéppari ne leen da ngeen di wër laat usa manaata ngeen jaamu leen suñu kanam ñu xam ne ñun ñoo yore diine dëgg bi kilifa yahud yooyu nga xam ni ay borom xam-xam lañu te nanguwuñu woon sax di jaamu xërëm waaye naaféq ak bañ muhammad jaral na leen ñu wër xërëm yi di ko jaamu subhaanallah subhaanallah ittaxadu ahbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min dunillah gis nga ko nangu nañu ñoom sukk ci kanamu laat nga xam ni xërëm la bant la bu ñu yett sukk ci kanamu uzza sukk ci kanamu manaata ak hubal la ne ñii ñoom ñooy yàllay dëgg yi weddi yàlla ma ca kaw asamaan te ñu xam ni yàlla am na bi mu ko defee àdduna bi lépp santaasante la naxante la léegi-léeg nit di nga ko bëggal dara mu xañ la lu ëpp li nga ko bëggal kon ñoom bañ Muhammad jaral na leen ñu jaamu beneen diine te pourtant ñoom yahud lan la ñu waxoon dañoo nahnu abnaullahi wa ahibbaa'u ñoom nee nañu ñoom rek ñoom diina ndax ñoom ñooy doomu yàlla ñooy ay soppeem waaye nar ak mbon jaral na leen ñu jaamu ay xërëm bi mu ko defee nag waa xatafaan yi ak banu nadir woo kilifay quraysh wax ak ñoom ne leen ñun pare nañ ñun yahud yi wër madina yépp heure bu ngeen paree ngeen wax ñu te pare wuñ ci yéen waa Quraysh dëkk yi leen wër danañ fa dem ba ñu am coalition bu ngand su ko defee ñu ñëw faagaagal Muhammad mu génn ñu dellu Madina yéen ngeen dellu Màkka nekk ci seen jàmm di jaamu xërëm jàmm am ndax feeg Muhammad a ngi dund ñun du ñu am jàmm du ngeen am jàmm laa ilaha illallah ñoom noonu lañ ko déggee ah Quraysh nangu ne leen ñun pare nañ ñu jóge foofu dem ci dëkku arab yi nga xam ni ñoo leen wër woo leen banu saalima seen kilifa yahud yooyu jóg jëm ci janu bu quraysh fekk fa banu kinaana ñu ànd ak ñoom jóge fa it ñëw côté tihaama tihaama boobu seen njiit ñëw ànd ak ñoom ñu nekk ñeenti junni banu sulaym ñu nekkoon bi marri zahraan ñoom it ñu génne ci côté charq banu xatafaan noonu banu fuzaara ki leen jiite mooy uyaynat ibnu xisn banu murra ki leen jiite mooy xaaris ibnu awf banu ashja ki leen jiite mooy misar ibnu ruxayla banu asadit génn ñii bi ñu dajaloo nekk mbooloo mu bari bari bari bari loolu moo indi turu ghazwatul ahzab kuréel bu nekk daldi jóg nag ñu ne léegi nag li des mooy ñu dem Madina envahir ko wëlbati ko nangu ko rey jullit ñi génne Muhammad ak i saxaabaam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi mu ko defee nag ñu tënk seen rendez ngir jóg yonent bi daal dafa nekk madina moom ak i saxaabaam jékki yàggul rekk mbooloo mu bari wër madina léegi renseignements généraux yi xam nañ ni am na lu xew te mbooloo mi bu toll nii jullit ñi mësuñoo jàkkaarloog moom ndax mbooloo mu bëree bëri ba bu ñu riddee picc yi jóg bu ñu jógee pigeon yi jóg loolu mbooloo mu baree bare la jege nañu fukki junniy nit fukki junniy nit jege nañu ko ëpp na ko sax ñu nag bu ñu jëloon Madina yonent bekk saxaabaam muhaajiruun ak ansaar ak ñi fa dëkk góor ñaak jigéen ñi armée bii ñëw moo leen ëpp kon daanaka mënoon nañ leen joggate benn yoon mbir mi jeex mënoon nañ leen faa jële ah yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam problème am na gaa yi jege nañ ma Madina dugg seeguñu yonent bi daal di woote réunion d'urgence woo gaa yi ne leen ah problème am na de jóg leen am na fii bi ubbil foofu problème am na jullit ñi nag daadi dajaloo kibaaru sahaaba aboubacar omar ousmaan ali asanal mubasirina bil janna jullit ñépp jóg shabaabu madina ñépp jóg yonent bi xaw na am jaaxle lan mooy xaw am jaaxle ci dëkku jàmbur la nekk dañu ko dalal xeex bu toll nii bu fi amee ñu taal dëkk bi lakk ko ëllëg dañu ne muhammad moo indi lii lépp jaaxle boobu nag jàpp yonent bi mu daldi woote réunion d'urgence ñépp daje bi ñu dajaloo nag waxtaan lan lañu war a def balaa lii agsi foofu nag réunion bu metti la gisiin yu bari am na fa xëccoo xaw na faa am ba borom bi def ko ni ida azamta fa tawakkal ala ndax ndaw ñi ñoom seen deret dafa tàng ñoom nee nañu fii lañuy toog xaar leen ñu xeex ñoom ñenn ñi ne leen déedéet lool du xel ndax bu ñu toogee xaar leen ñu fekk ñu fii ku mucc ci ñu nit sa jabar du mucc sa doom ju mucc kon loolu du xalaat ñoom saad ibnu muaz saad ibnu ubaada ñoom Aboubacar Siddiq ñoom ñépp a ngi toog ñoom Umar ñu daldi nag jël benn rëddukaay nag di rëdd plan de guerre indi carte Madina nan la ñuy def fi ñuy taxaw di jaaxle nag ci la yàlla indee benn biddiw bu mag ci biddiwu saxaaba yi koo xam ne daanaka dund na ñetti téeméeri at ak juróom benn fukk kooku moom xam nga ni moo mag sax yonante muy salmaanul farisi ala kulli boroom xam-xam yi wax nañu ay atam ñii ne nañu dund na téeméer ak juróom-benn fukk ñii ne ñaari téeméer ak ne ñetti téeméer ak juróom-benn fukk en tout daal mag la lool lool lool ndax moom fameem dañ jaamu safara dem na di wër yonent bi te yonent bi ak seegul Madina ay at ba ñu jaay ko ci yoon bi mu nekk fi jaam fu nekk ñu dugal ko fa ba mu ñëw Madina ba bi yonent bi sallallahu alayhi sallam di ñëw Madina fekk na moom Salmaan mi ngi xaar yonent bi Madina ndax la mu xamoon rek mooy jaar-jaar bu gudd la xëy na bis dina ñëw ñu tënku ko ci benn benn dars mais ala kulli haal Salmaanul Farisi moomu nag moo jóg keroog mën ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam may leen ma coow li bari yonent bi ne leen déglu leen ñu déglu Salman jóg taxaw ne leen ñun dey ca Faris ga ñu dëkkoon muy Perse mooy diggante Iran ak xudud ne lu mel nii bu ñu musoon dal nga xam ni mbooloo daf ñoo bett xamuñu nu ñuy dem ne dañuy gas ay ngaadew ngaadew olof moo koy wax mooy pax moo xam ne yaatuwaay bi fas du ko mën a tëb xam nga fas day tëb gëléem moom du tëb fas boo yaatuwaay boo xam ni fas bu ñëwoon bëgg a tëb bu xalaatee day arrière ñu ne loolu nun koy def mu ne buñ ko wëralee dëkk bi noon yi dañuy taxaw ndax day nekk ponc suñu diggante ak ñoom wala mu nekk barzax wala mu nekk lenn ba duñu mën a dugg bi mu waxee loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëngal bopp bi xam ne ah xalaat yi ñu doon wër yépp mu jafe am na bu yàlla yombal mi ngi nii bi mu ko defee salmaan nekk xakim coow li bari yonent bi ne man day gisiinu salmaan ànd naa ci Umar ibn Xattaab jóg ne kon amatul amatul wax amatul xalaat ànd nga ci nañu def loolu ñépp jóg nag ñu ne waaw léegi nan lañuy def pour loolu am diggante bi gàtt na pour ñu gas ba buntu dëkk bi fi gaa yi mën a jaar loolu dana laaj liggéey bu metti Salman ne leen mbir mi jafewul par mbooloo mbooloo la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne nañu jël par fukki nit équipe par dix dix bu ñu defee équipe par dix dix nit ñuy def rek mooy comme gars yi gasal ndox courant yeeg xaw ma ndox yeeg yooyu nit ñuy gasee nga xam ne dañuy fay ay nit ñuy gas mais bii fukki nit ñi dañ leen di jël ñoom ñu nattal leen 40 zira maanaam nattal leen ñeent fukki xasab mooy lii buñ ko wëññee ba mu nekk 40 ñeent fukki xasab boo ko wëññee dana la xaw a jox 10 mbaa mu jege ko ne bu nu ko defee. ñooñu nekk foofu di gas ñu commencé nag séddale équipe yi nga xam ne gis nga ku dogu himmatu rijal tusilul jibaal góor gu dogu su ne montagne bi danaa ko daaneel bu bàyyiwul dana ko daaneel saxaaba yi dañoo déterminé ndaw ñi bëri na même gas bi am na jigéen ñu doon participer dañuy bañ ñu mujj dem laxasu laxasaayu ñëw nuru góor ngir liggéey allahu akbar loolu mooy solidarité loolu mooy bëgg sa diine waaye loolu mooy xeexal sa diine gaa yi sawar nañ yonent bi jiitu leen di gas di leen sant taxawul naan leen gas leen de ëllëg yàlla fay leen su ko neexoon mu wax ko mën na ko su ko neexoon mu wax ko waaye deful ni gaa yi def santaaneb tool ñu lay bayal nga toog fële ci sa piliyaan sol say gant naan leen lu waaye def yàlla fay la te yow nga tëdd te nga moom yëf yi yaa koy jëriñoo loolu ay nax la nit diine du doxalee noonu nitu diine boo wootee liggéey boo nee nañu la góobal yaa war a njëkk góob boo nee nañ la ruujal yaa war a njëkk a ruuj loo santaan ci liggéey yaa ci war a jiitu ki yàlla yónni day ku ne xam na ne moo gën ñépp waaye noonu la doon def sallallahu alayhi wa moom am na équipe moom yonente bi am na équipe am ànd ak salmaan ak ñenn ci nit ñi dayar loolu nee nañu moo sabab yonente bi na salmaanu minna ahlal bayt waaw yonent bi na salmaan day ci ñun la bokk ci waa kër sama waa kër la bokk kon nga gis ni salmaan commencé naa am daraja bu mag a mag ndax da doon wax ni bu nit ñi baayoo seeni baay man salmaan islaam mooy sama baay abil islaamu laa abali si waaw Salman nee na man islaam mooy sama papa bu arab yi jëlee seeni xeet di ko askanoo naan di woy sama maam di woy sama baay Salman nee na man islaam mooy sama baay mooy sama maam waaw allahu akbar sahaaba yangu bi mu ko defee nag mbokk yi ñëw na ci riwaayal imaam Buxaari bi ñuy gas nag gas mi ñii di gas ñii di yëkkati yëf yi di metti lool yonent bi nag bëgg leen bégloo keroog mi ngi yore benn sémmiñ walla bu la neexee pikk niñ koy woowee yonent baa ngi jël di dóor naan allahumma laa aysha illa ayshu l axira faghfir lil muhajirina wal ansar allahu akbar yonent baa ngi dóor naan yàlla dund neexul lu dul dund alaaxira xam nga dund àdduna neexul soo noppaloo sonn boo tëddee sonn boo lekkee song boo sangoo sonn boo doxee sonn boo amee oto sonn kuy noppalu ñépp ñéppay sonn boo taaloon sa oto bu neex climatisé lépp di dawal balaa ngaa àgg mbuur sonn gis nga ki dugg njaga njaay di fay coono bi muy am moom ngay am xam nga lu tax laqad xarana al insaana fii boo ne woon noflaay dàq naa tëdd sama mat laa bu nooy nelaw mat matelas bee lay sonal boo tëddee tuuti yaram bi commencé tàng diis nga commencé fudd boo foogee ne xaalis mooy tax nga am noflaay boo ko amee gën a sonn ndax doo bëgg mu jeex kon adduna noflaay amut fi moo tax yonente bi di xiir saxaaba yi naan leen allahuma la aycha illa aycha al axira ay yàlla yàlla daal dund bu neex bu dal bu heureuse amul bu dul bu alaxira yàlla maa ngi lay ñaan faghfir lil muhajirina wal ansar yàlla na nga jéggal muhaajiriin ak ansara ñaanu yonente bi la dana nangu moo tax saxaaba yi ñépp a dem ajjana amul exception ñépp ci saxaaba yi dañoo dem ajjana as saxaaba kulluhum udul ñoom ñépp a maandu loolu yàllaa ko may ab yonentam jaarale ko nag ci ay sabab yu xel mën a nangu saxaaba yi li ñu nangu yow nanguwoo ko man nanguwuma ko keneen nangu jël sa bakkan jaay ko islaam yaa ngi nii bu mettee léegi nga arrière waaye saxaaba yi seen lépp lañu ñu joxe dara desee luñ ko islaam moo tax islaam amul ku toll ni ñoom moo tax yonent bi di ñu yedd ñun umma bi di ñu yaraat ne nañu am yar nañu am teggin nañu dellu ginnaaw lu waay jaamu yàlla ci ñun lu mu rëy rëy rëy rëy ci wàllu jaamu yàllam lu toll ak tibb benn saxaaba benn saxaaba bu tibboon lu toll ni tibbam lu toll noonu yow mënu koo def lu toll noonu ci jaamu yàlla ba mel ni saxaaba bi kon bu ñu njuumte naree jàpp nga bëgg sa kilifa banaan moo gën diw du moroomu diw nangam nangam ah loolu njuumte gënu ko rëy saxaaba yi kenn du ñoom ndax ni yàlla tànnee yonante bi noonu la ko tànnalee ay saxaaba ñu jub la ko tànnal ñu baax la ko tànnal ñu ragal yàlla la ko tànnal ñoo xam ni dee leen gënal dund ñoo xam ni islaam jàll moo leen gënal preuve bi mooy bi yonante bi génnee àdduna su fekkoon ni li ñu nekk gëmuñ ko islaam du agsi ci ñun waaye kenn ci ñoom talul nelaw ñii ñu ngi dee ca biir Afghanistan ñii ci àll bi fu la nit diggu fa ngir jottali laa ilaha illa allah ñëw na ci xadiisu Anas ibn Malik radiallahu anhu ne yonent bi day gas ba yàgg jóg di contrôler gars yi di xool di sàn di wax gars yi di gën a dëgër ñii di tuur pikk yi Anas ne yonent bi génn jëm ci benn bërëb fekk gars yi di gas bët set na sedd na lool ndeysaan yonent bi gis leen ni ñu xiifee amuñu lu ñu lekk allahu akbar amuñu dépense madina metti na kenn newul ndékki te pourtant ku mu neexoon nga ne ah man ndékkiwuma mënumaa dem ñu ne la tëddal ci ker gi waaye ku dogu faaleetul lekk faaleetul naan yonent bi ñëw taxaw tiil neem rangooñam ji tuuru mu ne allahumma inna al aycha aysu al axira faxfir lil ansaari wal muhaajira yàlla dund dëgg mooy dund alaxira yàlla na nga jéggal ansaar ak muhaajirin bi mu ko defee saxaaba yi di ko wuyu ci làmmiñu abdullah ibnu rawaha am na ñu ne saxaaba yi ñépp andon di tontu yonent bi moom it bu yonent bi waxee loolu ñu ne ko nahnu alladina baayaru muhammada ala aljihaadi ma akbar nahnu alladina baayacu muhammada ala aljihaadi maa abada ñëw na ci buxaari yi sahaaba yi dañuy tontondoo ne ñun ñoo jaayanteeg muhammad ngir jihaad feeg ñu ngi dund pacte boobu walla loolu ñu si yonente bi dunu ko mësa dindi bara ibnu azib ne dañoo nekk ci bërëb di dóor di wëlbati di génne suuf suuf si bari lool ndeysaan yonent bi dem na ba mënatut mu jël kaalaam def ci xeer takk ko ci biir bi ngir mën a résister ngir mën a taxaw loolu moom mooy njiit bi ñuy tuuxal suuf si nag di wëlbati abdullah ibnu rawaha ci la wayee wayam bu siiw boobu ne allahuma lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala sallayna فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الآل رغبوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا lu mu wax mu ne yow yàlla bu du woon ak yow du ñu jub kon njub ci yàlla rek nga ko mën a amee yàlla rek moo mën a maye njub ku yàlla wërsëgal ba nga jub di jullee ci jàkka di dem jàkka di xalaat yàlla santal yàlla te sa sujjóot di yàgg ndax du sa njàmbaar ñi ko deful ñu ci bari yàllaa leen ko dimbalewul waaye li la yàlla dimbalee faveur la santee ko ko mais yow yàlla bu dul woon ak yow duñu saraxe te du julli kon nanu sant yàlla di julli di saraxe ndax ñi ko dul def ñoo ngi lay ñaan yow yàlla nga wàcceel ñu dal nga saxal suñuy tànk bu ñuy xeex ak noon yi ndax yéefani kat danoo bëgg a jeexal ñu te nag duñu ko nangu incha allah ñoom way da daan yokk ci ñoom lu bëree bëree bëree bëri jullit ñi di gën a sabar biir yi dara nekku ci waaye dëgër nañ jigéen ñaa ngi daw ñoom it di indi ndox ku gaañu ñu faj la di leen encouragé jigéen day ñëw ba ci jëkkëram ne ko bul bàyyi de góorgóorlul ajjana jar na lu ëpp lii allahu akbar teet teet teet saxaaba yi fi xeet lañ boo xam ne kenn du ñoom léeg-léeg doom yi dañuy daw ñëw di jàppale seen papa ay xale yu ndaw yoo xamante ni ndeysaan abu talha ne mbir mi dem na ba metti am ñu ne yonent bi xiif nañ xiif nañ ba àttanatuñu dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati loxoom bëtiitaa ndeysaan muy ñaan boromam ndax mbir mi metti na lekk amul naan amul te gas mënta ñàkk te bu nu yéexee leneen daa am yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bët yi taa ndeysaan mu tàllal yàlla loxo jaabir ibn abdullah ne maa ngi gis yonent bi sallallahu alayhi wa di ñaan ba ci yàgg rekk mu am benn bahima bu ñu jàpp nee na bi ñu ko jàppee ndeysaan daa di koy rey lakk ko bi nu ko lakkee ñu bëri ci saxaaba yi kenn ku nekk da caa mos rek suur loolu dañuy wax ni mujiza la incha allah kon dars bii di ñëw bu neexee yàlla ñu àggale gazwatu ahzab yàlla yàlla defal ñu tawfiq defal ñu dàmm def ko ñoom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu